Mhm. a xaaral lu yees ah, bi yoon nag dañu indi euh, yu bees dañu wër région Sénégal bi yëpp réew mi yëpp fépp lañ dem dem nañ ci sud bi ci est bi ba maatam wàccaat Saint-Louis yëpp lañ def ci te yoon bi lañ jël donc ren innovation bi gën a mag bi nga xamante ne ñu ngi koy tàmbale bi ren mais yeneen année yi di ñëw tamit noonu lay demee moy région Sénégal yëpp par acteur culturel yi acteur touristique yi ak artisanat bi ak ak acteur euh, gastronomie bi tam dañuy ñëw ci carnaval bi joggé sen région ñëw participer ci bi festivité yi ñu bëgg xam lan nga koy dénk ak euh, ban woote ngay def

boobu laay woote. bon lolu ñu ngi koy defar mom la doon wax euh tournée régionale bi ñu def donc amna yu bari yu ñu inspiré dal donc ñu ngi ci liggéey te ñu ngi wo aussi euh, ben, sponsors yi partenaires yi euh naa di ngeen tas information bi pour ñu japp ci parce que di événement la bo xamantene du événement bu ndaw voilà événement bi fête la certes mais événement la boo xamante ne bu doxee ñëpp ci am bénéfice même sponsor yi di ñëw. si nous ngi de toute façon nous avons composer euh, événement mais nous avons fi nekk voilà nous avons ci 14 régions yi euh, région 13 régions et plus Dakar bi nga fait bon donc bien sûr acteurs culturels yi acteurs de l'artisanat acteurs euh, de gastronomie chefs cuisiniers, acteurs syndicats euh, d'initiative tourisme Nous, nous, participé dinañ cet participer à événement Oui, donc euh, Rennes, donc le partenariat de Leyti donc ci les yi les